tey li fi xew nii gis ngeen ko euh, metti na suñ ay rakk la suñ ay mais euh, affaire bi dafa jégg dayoo parce que dara dàqul jàmm jàmm rek la ñuy woote ñun en tant que autorité municipale mais xale yi dañ dul dégg koo ci bëggoon organiser tey li mu lay njëkk tontu da lay saaga wala ne la boo laalee sambagaal wala mbeddu buur laaj wala wala wala wala loolu dafa bëri ba nga xam ne dañ dem ba jégg dayoo dañuy population bi nga xam ne ñoo dëkk HLM pour ñu génnee seen doom yi dem école sax problème la ñoom ñëpp dañuy ñëw ci mairie bi yuuxu yuuxu commercant yi mag yi mënatuñ jaay parce que seen bunt magasin la ñu fàtt ñu ñoo ne leen carrément may leen ñu fi may leen ñu fi fii tëli la oto moo fi war a jaar route secondaire la avenue Cheikh Amadou Bamba la tudd lii dañ ko defar pavé bi fi ñu taxaw ni xoolal niñ ko dëjëte dëjëti ko jël seen ay parasol samp ci biir jël ay pavé tegle ko nii def ko taabal di si jaay te ay millions centaines de million lañu ñu dépensé fii jëlewuñu ko ci ñoom or xajoon na ci santé wala ci population bi mais ñu jagle ko fii pour def ci ay oto am lu lu luy ruus ñu ci jël pour mën a faj leneen mais déedéet ñu yàq lépp jël ay bidon vingt litres su feesal ci suuf ba mu fees dël di ko dugal ci caniveau yi bu ndox nawet ñëwee du mun jàll loolu naka la ko nit mu ne xalaat di ko def alors face à tout ça là conseil municipal bi après avoir vraiment diagnostiqué la chose bi ñu wëree xoolaat mbir mi ñu woo maire conseil municipal ñu ne ko carrément bëggatuñu kenn toog fi du affaire maire affaire commune HLM la population bi loolu la laaj conseil ci gox yi lañ dëkk dégg ko ñëw commission yi taxaw woo maire ba mu ñëw ñu délibérer carrément devant l'autorité euh, bi fi nekk muy le représentant de l'État muy le sous-préfet ñu ne ko fii bëggatuñ fi gis nit donc loolu bu ñu demee ba def ko ça veut dire que moyens yi dina suivre nit ñi dinañu suivre lépp lu ci lu muy laaj pour nit bañ a fi jaay loolu moom acté nañ ci ba pare dootuñ ci dellu si waat. mën waaw xam nga boo duggee ci réseaux sociaux yi di nga gis ne population HLM mi ñu gën a impacté chaque jour lii la ñuy jooy. waaw léegi ba léegi ñu ngi koy def léegi euh, conseil municipal bi jël na mbir mi ci loxoom dem na délibéré na jox na ay sañ-sañam maire. ne ko carrément fii bëggatuñu nit toog fii le maire il ne suit que rek lépp li nga xam ne mooy orientation conseil municipal nee nañ ko jumlukaay yi mu laaj dañ ko teg moyens yi mu laaj dañ ko teg nit ñi nga xam ne tamit ñoo fa war a nekk muy agent municipaux yi dañ fi nekk moo tax boo xoolee boobu ak léegi agents municipaux yi dañu dañu dañ leen renforcer parce que moo tax ñu woon lii maire daf leen renforcer jël ci gox bi ay doomu aslem ñu sol ay jile ñëw taxaw ñoo xam ne léegi agent municipaux la ñu ànd ak nag li nga xam ne mooy autorité bi nga xam ne mooy mooy superviseur Sénégal bi yëpp ci sécurité muy police ñu ànd ñoom xool ñun dañu xeex bi ñu sànni mais quand même fii maire am na droit conseil bi municipal bi jox ko orientation ñu ne ko kenn du fi toog mu ne bu fi kenn toog loolu rek la léegi ñoom nag nu ñu xool fi ñu dem parce que li fi nekk ci nit c'est pas possible mënut a nekk suñu maam yeeg suñu papa yi mënatuñ fi doxantu dañuy ragal loolu la suñu ale yëpp sàcc kii nañ ko saw nañ ko ak yooyu parce que amul fu ñu jëm parce que marché day am toilette ak yooyu parce que fii du marché moo tax amul loolu mais bu duggee ci marché bi am na ay toilette mais fii amul toilette léegi ku bëgg toilette da ngay dugg ci ale yi saw loolu mooy problème bi loolu mooy problèm bi sànni xeer yeeg yooyu jaru ko ñoom ñoo ko fi indi mais nañ fi jógee nañ fi jógee ñu ngi menacé dañuy taal marché bi dañuy def lii dañuy def lee mais nañ taal marché baa ngi nii il faut que force nag reste à la Sénégal lañ lañ nekk nag